masin ba joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant sayxi Fàllilu jóg leen taxaw nuy sant sayxi Fàllilu guddeeg bëccëg nu jublu sayxi Fàllilu yaaro ci mboolem lawlu yow Fàllilu yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug mbindeef yi ay ji na mbàkke Seex Fallu fam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tariku laay alaaji Fallu yaay rasulullaay dem nga fa Makka fam nga ni laay alaaji Fallu yaa juboog li laay am nga nga ni li yàlla fam nga nga ni li Bàmba hamdulaay sareetu aqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng bay ba def xalifa def moom xarnu bee Tuuba tabax jumaa ji lay mooy xalifa moo biyoonu makka naw leen néew moo bi yoonu Makka ak Madina ay million sappee moo bi yoonu Makka ak Madina Alaaji Baara saana diina yaab siyaare Amadul Makkiyu jël siyaare Amadul Makkiyu jël siyaare waa Baqiya xabru Tayiba siyaare kër njool Makka xam nga barba Seex Fallu añ na fa Makka sànni jam la fon doj wa dem Arafa delum la dem na Safa dalli fa taxaw makaama dem na langale fa Seex Fallu julli jumaa ja naan ca biir kaaya waa Makkata yaa bari ndam yaam jaloore ak ndam a mu ne su laa suukar maa moom sa jël na ndam la bambani fallu laayi fallum yàlla alaci yam mbàkke bu jaayam bamba di baayam fallilu di jaaram yaa jara way yaa jara joxi daaya yaa jara jaamu yaay borom kon bismillahi teema jóg way fi jilin seewey ñoo ma boppam soxna jaara soxna jaara soxna jaara moo di dey ba mi desi di feeñaat teeram wa de foo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neefi tey duñu bew wayi nga te wayi nga te forox nga te foo nga delu ma bidas yàllal yàlla yàlla jox barke jaara bu defan sukkat cuune duñu wan ki ñuul dolle dal ko jël cim nen soxna jaara lañu wóolu mos julli te jàppul mos julli te wildul doole kay sangam tuubal daal di wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji njëkk jigéenam soxna te njaayi mbokkam saalam so maaram wal sëriñ gaawaan sëriñ gaawaan yokki jaamam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 Cheikh Ibra di lamp bay leeral ab la jéemay Maamoor Jaara Maamoor Jaara ab la jéemay Maamoor Jaara yéen jaayi Bamba yéen a moo pëg pay jëf moo waral moom Bamba ab jullit la muy jëf yéen a waral kër buuram yéen fa la muy jëf yéen a waral kër ak moo tax ab war nay jëf te boole koog yéen loola mooy njërma dee leen jëf te boole koog yéene ba ñu doo jëkk a karaam ni soo kaay leenam kooku la daanaane moo taxoon mosul leenam bu guddee mu dem diiwaan baa aras di waxtaani naan ta kooku ak leer lee yónneen bi ñëw di ko rekku mu mel ni kiimaan mu ranke njëniil nga ngoolaan mu di alal taamaan muy wool ay jabar ak naa jooju doom dema waar tànk doom demal banu fi soxna saadek waar soxna jaara yoom nga te yaa gore maam soxna ba sun maam ji yor borom nga ñu te fii jafe na cib jaam masala dox di waxtaani soxna jaara masala dox di waxtaani masa jóg di seetaan masala wax ba ñeetaani moo taraxal saytaani masa dox caag raw sax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 ndax wala bëtam dafa jër soxna jaara mi war naa tax jigéen dafa xaadam man ki nangu woon xaadam te si gël kal maaram soxna jaara mi war naa tax jigéen nangu sëriñam boole cem du kat ak xel jigéen mu di yaaram soxna jaara mi war naa tax jigéen sanal góoram yekk say takkaay di ko jox mu di yaaram soxna jaara mi li mu am sax jigéen mënu koo jëf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 kaaba gaa nga tuuba tey laa waral njàngaay léeg bu sëriñ yi soxlaar wa tamuy ku nekk ngay teeral ruy ba mu daa jox maam moor moo waral kabe suukar koog ya moo sun kaas yi nguur daa puutar njalla mu daa jox maam moor moo waral mu rii sow koy sootu doo baabal soxna jaara moo jar pal bu ciyeen doo baabal ñeenu faab liitar boole suukar ak meew noonu soxna saa yore tiitar wal gamu daawal moo tax daara yëpp naa kunkang boole kunkang ak kàndang bu njëlee ñu naa biñ bañ waram gaa waral mboolem daara yeeru joxul joxi soxna jaara moo mën a wal ñëpp a ngi luxul luxi loo wal daaru ngi fal yu luxul soxna jaara moo amu xew ñëpp a ngi fan naa fan soxna jaara soxna yaa ngi moñ na ñax na ñaxi bu sa baaji moo ayet tey ñëppa ngi jamax-jamaxi keroom daa daw moo tax sun saxaar gi naa ñu jox paasam boo du naa ding dañ njaay ko gati na joolooli génne leen paase waaju ba gërëm gaal gaa ngi la paasam ba njaay ko gati na leen paasi waaju ba gërëm gaal gaa ngi la paasam bu sa bi soobee yàlla maay were kaanam atraat bu sax laa dem saña wàcc ci bekkaanam yaa ngi teem jaawaral mboolem yey bërët bërëti mu ndigal ji bee mooy raw gaynde ti narit nariti toggam gaawaral taal yi takk soxna jaara mii war naa tax jigéen dafub xaadam moom ki nangu woon xaadam te si gël kalmaaram soxna jaara mii war naa tax jigéen nangul sëriñam boole cem du kat ak xel si dee mu di di yaaram soo jaareem yi war naa tax jigéen sanal góoram yekk sey di ko jox jigéen mu di di yaaram sama jaareem yi li mu am sax jigéen mënu jëf waaye nangu ak yéene daanu dellu pay yi jëf teel ba mu teeloon maa moor ba fanaan caa tawte moo di sàkkati weñ war na kànkaal saate surux yam defal maa moor moo waral tabax jiital ak basang bu ñuy tooyal kaaba gaa nga tuuba tuuba tooyam lefal maamoor moo wal ba giital ak basang bu ñuy tooyal kaaba gaa nga tuuba tey njàppam laa waran jàngay leeg bu sëriñ yi xeeñoo wa tamuy daw ku nekk ngay teeral ruy ba mu daa jox maamoor moo waral kabe suukar kooge moo di sun kaasi nga nguur gaa puutar njalla mu daa jox maam moor mooral mu rii sow koy sootudoo baabal soxna jaara moo jar dew pal bu ciyendoo baabal ñeenu fa ab liitar boole suukar ak soxna saa yor tiitar wal ga mu daawal moo tax daal yëpp naa kunkan boole kunkan ak kandang bu ñu naa bing walam gaa waral mboolem daal iiru juxur juxi soxna jaara moo mën wal ñëpp a ngi luxi waaw waaw jéggi daaroo ngi fal yu luxluxi soxna jaara mu am xew ñëpp a ngi fa soxna jaara soxna yaa ngi moon jana ñax na ñaxi bu tey ñëpp a ngi jàmmax jàmmaxi moo tax sun saxaar gi naa rëg rëg boo soxla ñu jox paasam boo di naa ding dang njaay ko na joolooli génne paase waaju bëgg dem gaal gaangi nu def la paasam bàcc njaay tëggati na jooloon yi génne leen paasi waaju bagga gaal gaangi nu def la paasam bu sa baali bi were kaanam atraak bu soxlaa dem saña kaanam yaa ngi teem mboolem dong yey bëlët bëlëti mu ndigal ji bee raw gaynde ti narit nariti toggam gaawaral taal yi takk baa fa taxaw makaama demmin nan langale fa Seex Fallu julli jumaaje nan ca biir Zamzam waa Makkata yaa bari ndam yaam jaloore ak ndam ma tiital mu ne sulaa ngañati yaa di suukar maa moom sa bari na ndam la bambani Fallu laayi Fallum Yàlla ala ci yom Mbakke bu jaayam bamba di baayam Fallu di di yaa jalaway yaa jara joxi daaya yaa jara jaamum la kon bismillah teema jóg way fi ngeen seewey ñoo ma jëmmalul boppam soxna jaara soxna jaara ba mi desi di feeñaat te yaram wa de foofu ndaw soxna jaara bu jigéen kon mi ne fi tey duñu beew waaye nga te waaye nga